verrez vous-même que c'est la décision la plus impopulaire bi vous avez bi ngeen ñëw ci ba vous l'avez constaté moo bu ngeen c'était une erreur te bu leen ko répéter les Sénégalais sont là réduction des comptes oui képp ku à alalu Sénégal dañ ko war a jàpp ñu luubal ñëpp jàpp leen Sénégalais bu ci am lu Ils ciy wax jàpp leen leen xam nañ leen rapport yaa fi sacc yi ñun ñu xam nañ leen kenn du ci wax au contraire on va applaudir mais bu mu chasse aux sorcières bu mu nekk diw encore une fois c'est pas pour Cheikh Yérim Seck c'est pas pour Kader c'est pas pour Bouga. ñun nekkuñ ci ay personnes démb dëkkale won nañu barki démb dëkkale lon nañu ñu Macky Sall démb ñu dëkkal ñu Pastef tay buñu kenn dëkkal keneen parce que du ñun du ay problème nit c'est sur les principes on reste sur les principes et on restera sur les principes quoi qu'il advienne quoi qu'il advienne te ñom ñoo la ko gëna xam ce régime en face ñoo la gën xam ñun on restera sur les principes fëkk yóbbuwuñu et que on sera là on restera les vigiles de cette démocratie on veillera sur notre démocratie Ken du salfagne. salfaañe personne personne là wax du sur une démocratie on sera là et que l'eau, il faut nous clair donc Gaï, watan de bi loolu la woon mais alhamdulillah tout est bien qui finit bien on espère que dinañu jël les leçons de cette décision impopulaire bi que d'arrêter les gens à tout bout de champ pour des lois liberticides yoo xam ne ñun ak dañ ko bokk de kon loolu nañ ci bàyyi xel ñu jublu ci urgence su sénégalais yi ci urgence su sénégalais yi nag ñëpp a dawal compréhension sénégalais boo gis fépp ngi métti ku nekk sonn mais ku nekk xam nga ne juróom-benn weer quand même munoo cee critiquer yenn critiques yi nguur ñëpp xam nañ ko il faut il faut être raisonnable ku koy xaar ci ñun doo ko gis parce que on est raisonnable on est raisonnable mais on est patient notre patience nag lenn moo ko mën a yàq des, questions de liberté, ça, on ne l'acceptera pas. Parce que les questions de liberté, aussi bien que les lois soient là et, restent et demeurent, Bassirou Diomaye, son premier discours, il a parlé de lanceur d'alerte, que de mettre une, une, loi, c'est un autre pas de la liberté. Def assise de la justice, nous avons un rapport, ni Amat un yakar. Donc, si nous avons une loi, nous avons voté, nous avons

nañu bàyyi di defante yu ñaaw di waxante yu ñaaw ça ne nous avance à rien TikTok c'est un moyen qui permet aux Chinois de développer ay intelligence mais ñun on l'utilise pour yàq ay doomu aadama c'est pas normal et je dis à tous ces gens-là qui prennent la parole dans l'espace xool leen li ngeen di wax seet leen li ngeen di wax seetantal leen ko nit mënoo toog taal sa caméra di wax lu la neex ci deru jàmbur c'est pas comme ça c'est pas comme ça il faut que ñu xoolaat suñu taxawaay moo xam chroniqueur nga moo xam rappeur nga nañu bàyyi di wax loo xam ne du dëgg te teguñ ko fenn parce que nag

de réformer notre justice loolu moo fi gën ci teunk ci waxtaan bi te bu ngeen xolé ci ndortel bi loolu lañu ñu waxoon ci justice lañu yam yem te ci justice lañu yam encore une fois il y a un besoin réel et primordial de réformer notre justice parce que même système bi mo fi nek ba légui moy continuer de duñu gouverner donc dañuy ubi laaji su dee amna ñi nga xam ne bëggu nañ jëmal euh, samp ay laaj voilà euh ñu ñëw donc amna ben micro bu nek fofu sa ginnaaw ce tour ak laaj bi Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Amina Taban, Je suis journaliste sur euh, Source TV. Euh, ma question, c'est pour M. Tchat. Euh, en fait, M. Tchat, est-ce qu'en ce moment, Diapo que démocratie est renforcée surtout ci euh, côté justice bi euh, ndax euh, autant du gouvernement du président Macky Sall ginnaw buñ la jappé ba garde à vue la buñ la yobé ci kanam procureur de la république li ci top moy mandat de dépôt té gis nañu ba président Bassirou Diomaye Faye ñëwé ci bop nguur gi batay yakarna yaakaar ñu ñu fi daldi mandat de dépôt su ma ko xayma bokk na ci ki nga xamné euh, Moi, euh, activiste euh, bi ñu Japon. ba Diakhaté effectivement ak imam bi bu ko Ahmed Suzanne Camara motar tay est-ce que Japon, il y a une commissaire Keita effectivement est-ce que tay Japon, il y a une nette amélioration ci walum justice ak démocratie Sénégal. merci beaucoup Mon nga jox beneen. Gracias. Merci beaucoup. Une troisième question et commence à répondre. Bonsoir à tous, euh, c'est Lala Rasoul, journaliste Sénégal 7. Alors, ça fait presque six mois qu'elle euh, dégouline, leen waxu ainsi de suite mais nous avons aussi euh, yagne un di leen xeexal wala participer à cette lutte mi Guy Marie Sagna député à la CDAO, nous gis ne dafa subir des agression